mbokk yi ci gën a doon sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bal xaq ñëpp di bal ko di jëkkal suñu diggante ak suñuy waral jaam te ba toppante bi am bay yàggal bi su pénc su péncoo ba yàlla ñu ci yàlla boppam te féewal yi ak tiisam yu métti la fa nekk tey tomb bi ñuy fàttalanteel euh, nit ñi fàttewuñu ko ndax moo leen tax a daje taal ñu ko daan defe waaye ba dañ cee ñëw dañuy delluwaat jaalewaat bokki jullit yëpp ak bokki réew yëpp ñi nga xam ne yàlla daf leen woo woon ba ñu ñëw fa barabam ba moom fépp waaye foofu moo fa woote ñëpp dajandal fa mu jël ca lim bu takk boo xam ne bindoon na bu yàgg ne foofa la mu des moo ne am na si ñooñ yàgg nañoo bëgg a dem Makka mu def lool waaye bi dogal bi tegesee am na si ñoom sënuñu li yóbbu dañoo fees rek ñu leen waaj leen te dem leen ba xëy ba am gën a gërëm leen ñoo ko dem noonu yàlla di doxale ay mbiram saa ko soobee ak kenn ku nekk ak fa mu koy jële ñu bari nag ci réew mi ñu ngi jàmbat lu tax mënu gu ñoo xam lim bi nga xam ne moo ci faatu loolu benn mu yàkkamti koo xam ne ab Sénégal la yàkkam ndax am na fi ma soon a nekk ñu ne ab la si te woon na fi réew mi du royukaay sax bañ di ko tudd si jàkka waaye alxidmatu amatul dafa waxoon ne Sénégal dafa yàkkamti ba nga xam ne ab tàngal sax ku saxee mënu ko muñal mu jeex waaye ni si tuuti mën a mën a jël bu mu def mu toogaat dafay daan ko def daal balaa yaa ko bind yàkkamti ànd ak nag li ñu yàkkamti yàkkamti diw faatu na moom du kàcce du kàcce te ruux yi Sénégal yi gënuñoo màgg ruuxi iraniya yi wala ruuxi pakistan yi wala nigéria yi te kenn ku ci nekk nee na nangam faatu na kenn ku nekk xam ne bokkam faatu na mu dem ci leneen loolu itam lu ma ta bàyyi xel ànd ak loolu lépp yàlla na leen yàlla yërëm dana fàttali si ñoom perte bu baax ndax yàlla moo waxoon ci alquran fàttali woon nañ ko karam ci aayaat wuute ci dalal la xel nit ñi ci koo xam ne daal jub daal la ko am na ci suñu wax nag wa man yuhadi fi sabilillah génn ci jooju fàtte suñu nag ku jàpp ne soo nee faatu na am na ku ne suñ ne téeméer ci ay Sénégalais faatu na réew mi tas suñ bi réew mi ñi fi ñu mu sëgg réew mi wala ñu faatoo ci réew mi ñu mag a ngi ci ñoo xam ne bàyyeekoo nañ fi bis te taxul na ambulance nit buñ laajoon ko des am nañu ko am ko joxe kon bañ a ngelawaat taxut nawet bañ a bañ a ñëwati waaye nag euh, ak lu mën a am ñooñu moom ci mujj gu rafet ci la teg suñuy bët yàlla defal ñoom moo gën fuuf faatoo ci yeneen barab yi des te moo ne ñii faatoo ci yeneen barab yi des duñ ko rus a wax duñ a ci yàlla musal mi ngi faatoo ci feccukaay mi ngi faatoo ci fawukaay ngi ko dikkal ci ndaje muñ doon def moo xam yàlla wootewu fi yonti ko wootewu ko alquran te yàlla nee na woon ñi nga xam ne dañoo faatu te fekk buñ ci woo def suñu borom moo sabab seen faatu mën ngeen di jooy jooy yu metti eh, di pakk seen yére di pakk seen i kawal te fekk booba koo xam ne ak cant mënu koo féete kaw ndax réccu nañ li ñu doon ci kaw suuf si لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون بلين دخلت من suñ mën a waxaat ñun dañ naan bu leen daaw la si ñoom ndax fii ñu nekk moo gën fuuf foofu ngeen nekk mu bëggal fuuf foofu ñu nekk wala buñ ñu mënoon a jaar wan yoon wa ñuy jaar bañ sekkaleel foofu rek ñu wan ko waaye am bëggante kon na jullit yëpp delluwaat delloo seen xel te góorgóorluwaat te fexe ba saa bu fàttee dikk bu fekk ñu si santaane suñu borom ba ñi nga xam ñoo ñu war a taxawu duñ am personne ne personne am na fa tomb bi ñu fàttalee rek junj nañ ko mooy bisu aljuma ci boppam ak jullit aljuma gi ñu ciy def mbokk euh, dafa am lu metti dañoo euh, wax ne bis bi nga xam ne moom lañ doon julli ñoom laaj ñu julli ko barata wala tabaski léeg-léeg mu des ak bisu aljuma waaye su ak bisu aljuma nit ñi ñu lay ca fañ doon jullee it parce que la koy xat waaye jumaa yi daan wéyal mbokk yi loolu doonte al fiqhul islaami indi ci ay yolomal ci nekku julli ji moom wala wala tabaski tam tasakal jumaa mën naa ko wàcceel mën na ko wàcceel julli bu jumaa ba des ci nga xam ne mooy war a jiitu si jumaa ja loolu la wax ne wata lu mu xat-xat lu mu surcharge surcharge ba ñuy wàcc nit ñi yëpp sëfar boobu sa bopp waaye it sëfar boobu saa bu xoolee gisul ay kilomètre du mën a dem day xool ci ginnaaw fenn fu nekk dafa war a toog par exemple bokk yi su ngeen gisee nag ñi daawuñ jël yenn ruxsa yi leen sagaam defal dañuy bañ mu dugal leen ci bàyyi lu gën a ñaaw faj lam leen wax ne su ngeen ci waaye kersa ci dëkk bu toll ni ak jullikaay bi nga xam ne nañ ne bokk na ci yi Sëriñ Tuuba santaane woon ñu fi la tudd bëggoon mu lañ ca jigee kersa bis bu mel ne bisu julli bu tasaat tabaski wala korite dikk nit ñi nawereer ca pénc ma fees tell pénc mi ak seeni sañse al jumaa ja jot jumaa ji na wareer te jumaa bokk yi du bu ñuy dëkk du ab saal waxtaane waaye jaamu ko yàlla boo fa yàlla moo fa joxe nañ ko xajal makka gee ba nit ñi des kon rek nañu góorgóorlu ba ni ñu tënkee kii jiite moom mënta wër sa mën a te bu ñu waxee kii jiite mën naa doon ne bala muy jiite yoo xam ne ku ñëwee fekkoon sa wutu ko waaye kenn mënut a ñàkk taxaw sa kanam rek su taxawaatee na gis aw nit ci li nga xam ne moo ci euh, niñ limee ñi ngay wàcc seen kaw ak niñ limee ñi ngay wàcc ak ñàkk koo fekk li si yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci fekk bant ko mën nañu ko loolu li ngay sukk ci jullit it moo xam muy korite wala tabaski ndax yonent bi sallallahu alayhi na bis aljumaa ñu mel ci jullit yi mooy eh, lu ñu sëdd jullit loo xam ne ba ñuy sëdd jullit yi fekke wuñ ko woon waaye ka doon sëdd moom moo naan bàyyil leen fi lii diw ñoom ñi fi nekk ndax nga ne li ci nekk yéen ñu naan ko dàkk. nga jàpp ne bisu kaw la nasaraan di ko dàq jàpp ko bisu dinañ nekkati yu mbóot yi yàlla ñu ko defañ ci bisu aljumaa umpale leen ko um leen ca ba jullit yi dikk mu ne leen ko foox kon nag jullit yi jël te fas ko yéenee lan la ngee ba teg ko ci yeneen loxo yi di ko bi nga ci nekk ndax bis la boo xam ne sallallahu alayhi nee na bis bu jënd dafay bis bu aljuma nag moo ci gën ndax benn rawee na ko gën na soo soo ko déggee mooy mën na tudd ci ay maanaam waaye nee daal bis bu jënt bi fenk moo ci gën ndax ci la yàlla nappee woon wala ci la bindoo ci maanaam fay naa samay tugu amulul aljanna ne ko yow yàq sa soxna fi nu mu leen soobee di waxe baaraam te lu ngeen a ko sax ko dagg uskun anta wa zawjuka jannata wa kulaa minha ragadan xaytu shituma waaye nag laa taqraba hadihi samara ca leen génne woon aljanna ñu ñëw fi ci tàngoor yi bari ay yoo bari ay mata ci wéradi yooyu xam ne nit da koy wéyale ko fan ba mu doon su foofu ihbita min ha jamian yéen ñëpp wàcc na ihbita yéen ñaar min ha jamian fi kenn ku yaakaar ne a gën a wax moo tax li ci aju ci liñ ma rek bokk na ci ku jullit ajjuma war euh, saa su nekk benn ci ay njariñam dana fa xamante ak mbooloo mu bari te bokk yi li yàlla di joxe li ci ëpp néew na lu muy tàllal nit ñi tàllal daf koy jàllale ci ay loxo yoo xam ne dara gënu ca gën a mën a dëgër fu nit xamantaa ci barabu suñu borom tabaraka nañu ne am kilifa gu mag sëñ bu xaare nee mi ngi daan tànn ay xaatam ci sëlmalee te ngi ko roy ci sax xatam mi ngi ko bu sëlmalee day yëngatu ñi muy jëkk yam rek di leen gis ak gisaat di leen gis ak gisaat bu ñu koy yëgal bu ñu koy yëgul def nañ ay xeet ci biir xol ndax lan fonk jàkk rawatina sàkk su jëkk sàkk su jëkk sa su jëkk ja bokk na ca la cay tasu bopp mooy jëlee nag dàkk dàkk ndar la dana tàng dem ci waaye kon xamantee moom ci mag nee na war jotee mooy jiitu joxe waaye des na fa gis ne yàlla rek mooy bon ndax tey ci jullit ci moom wala dàkkam da nga gis ci dàkk di ko xam naa boo ko bëggoon a gis sax mën dox waaw te doo ko mën a gis ñu naan la ñëwal bu ngoonee ñëwal bu altine ñëwal waaye bu ñëwee ci jàkka ji buñ xasee ba taxawal doo ko xàmbee ak ñi nga xam ne kenn seetu leen kenn waru leen ndax ñooy bokk seen sapp fu ñu taxaw tànk ak foofu yàlla yàlla rek moo ko mën moo ko mën a defee nit ñi li ñu ko def am na ñoo xam ne sëkk loo leen islam dana sax rëy nañ ko lu lu lu ñuy rot leen dañ naan jàmm taxaw ngay diggante fan tegalee leen ko fañ koy teg waaye xel xalaatu ñuy sëkk di far dara ndax jomb nañoo sëkk di far dara ndax dañ naan faral xel wala ñu ngi def waaye ba àggee ci rukkoo ñëpp naan ñëpp ay rukkoo ñëpp di si yoon bi yàlla dëpp seen juróom-ñaari cër yoo xam ne am na ci yooyu ngir sutur du moo tax li ci nekk ci ay ngëneel eh, rawatina koo xam ba muy dem da moo ko tey ba muy dem moo ko tey bis bu sa ñoo jàkk ji rek ñoo teel a jóg mu daal di putal bata bi dugg waaye da koo nga xam ne tudd ko rek moo ko tey mu yéene waxtaan bi moo àndal ci aw ak xet ak wàccaayu buy diine jàpp ne mooy wàccaayu set ak setal moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne ajjuma daa ñëw mu waaj ak wàccaay mel noonu rawatina bu ñuy xutba bañ a déyante bañ a a wokkutu bañ a def dara su ko defee ajjuma ba ajjuma dee si waaj diggante bi su fa defut bàkkaar bu mag dañ tuddee teraay la yàlla jéggal na ko ay ndax lan ci ngëneelu julli ci ajjuma ak moom ñu ko yàlla defal waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam ci dëgg ci dëgg wax suñu borom fab na ay daan yu metti teg ko koo xam ne dafa ñàkkal fayda julli ji ajjuma te dama ca daan ko charia nee na su nit ñi bàyyiwul ci tàgg ajjuma bu xuuree dafa bañ a julli ji ku ci moytuwul bu xasee ba dégg wax ji ku ci moytuwul yàlla dana fa tampon boo xam ne ko tamponaat amul bañ xamul ko xol bu tëju yàlla ci mu sax mooy li alxuraan di wax ni euh, allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wal ak waaye seen wax saxaan moom sawaatun alayhim ayanbartahum am lam tundir ci si ñiy gëm bay gëm yàlla yi yàlla yàlla bu sax te ñàkk fonk julli ci ajjuma mën na ko teg nit waaye nee ci beneen xadis euh, kooku yàlla daf koy wutal carte de membre ca daayira bu munaafiq te inna al munaafiqina fi daraki al asfali min annaar walam tajid lahum ku jógee ci faat mu ci fas fasik lay nag mooy koo xam ne benn tànkam na ci biir bii benn tànkam na ci bitti te ci bitti moo gën a yey ci nopp génne bi ci biir diine yóbbu ko ci sax moo tax bu bu ñu waxee ne jumaa yi jumaa yi bari ci yàlla dimbali ñu nag jumaa ji kër bokk ci woon alhamdulilah rabbil alamin dañu wëyal fu la neex daal am na foo xam ne sax bëgg wuñ ko ko def far ndax nag daanaka ñu si bari waaye bopp yi li ñu ne oto lu mu fees fees dañuy wàcc nit ñi iliman ba ca bopp moo ne xilif si ci muxtaar li muy am ay at yim am ak li muy xar-xar julli si ne na ne benn may wuñ ko ci Tuubaa ci loo xam ne dañ ne ku def lii bu la neexee bañ a def leneen yëpp dañuy boole def ndax aljuma mu gën a doon suñu dëkkandoo kii ba at la fi ñëw te lu mën a xew bu ñuy laal ña dëkk ak waa la dëkk laal li ñëw enquête bu waral li laaj dañuy laaj mbokkam du laaj sunna mu akkada yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def ba nag aljumaa moom ba ko waree aljumaa bu nekk dana dem te lee ñaari ñaari ñaari yoon ba nag bokk yi nag ki ngay gisal ñaari yoon waaye bu dee ñeent yoon jëm juróom soo ko bëggee weccoo koo xam ne par ak la fiy ñëw mën naa am bu dee si sax bu xalaat si ko loolu war na si aw yoon ku nekk war nga ko bàyyi xel bokk na si ngëneel aljuma yi yoo xam ne ku dem na bàyyi xel bari lu mu jël ci yonent bi sallallahu euh, waaye nee lu waaye mën a julli si moom loolu ñuy jàng bind bind ko xeetu julli mu nekk bind na ko ca waaye yonent bi sallallahu wa sallam nee na ay bis àjjuma ju dañ ma indi liste bi nan ma diw julli na ci la gëneel la loo xam ne àjjuma am na ko ëppalee ko ñi ci des kon ñu dellu soos xel yi bu baax xam ne ak jaam yàlla moo tax ñu indi na fi loolu rek lañ ñu fi bàyyee am na mag naa def sëriñ Saliou ñu ngi leen di fàttali li nga xam ne di fàttali sa bopp ne fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi te moo ñu fi bàyyi muy jaam yaa ak te wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin firnde la ci ne jullit bi amul benn waxtu bu mu war a nopp te waroon caa jaam yàlla ndax tàng na wala ndax sedd na lu dul dafa war daan defee waru waru garam rek loo ko ca fekk fekk ko ci bokk yi su ma dee si tënk ci ñi nga xam ne dañu faatoo Makka Mukarrama diggante bi mu ne am na ci réew am na ci réew bare bare bare ñoo xam ne seen dem Makka lañ ca gën a fas gannaaw joxe farata yi ak mooy yàlla des yàlla ay nañu ne am nañu ko filmé fekk bii léeg-léeg ci am ñuy daw am na ñoo xam ne dañoo dem wutali fa yëf yi jëm moo ne day sëriñ bi moom it bind na ci melokaani saxaaba yi di leen takk naan suñ masaan jub mbalkam dee eh, kenn ku ci nekk da ciy fas yéene naan ba naanal lépp kenn bañ koo moom doon mu ñu xëccoo dee xëccoo dee boobu tekk xam waaye am jàmbaar la ak dëgg li taxawal taxaw te du fi

loolu ndam la rek ak amas ndax faatoo suñu mel ni mbokkum yi ne ko fooy dama ko ñëw nii mën a ci néegu yàlla ba laa mu ne ko xanaa yow daa rek yàlla ni nga xam ne day fekk nit ci néeg néeg soxnaam wala néegu boppam wala néeg bàyyam wala néeg ndeyam daa ko fa ngay dem néegu paaru arab soo ko bàyyiwut leen daal waaye taxu ko wàññi ko at màkk daa jot ñu wax ko ko mu jàll li muy jaay dem aji màkk farafa ko bokk yi ñu ne nit ci seeni kër ci seeni néeg terewoon na muy dem néegam ñu muy dem këram xamoon naa ne xamoon naa ne fa lay faatoo xamoon ne day dee waaye ndokk waaye ndokk eh, yàlla musal ci pexe am na ay saabawaat ay rumeur yuy wax ne mbaa ak des ko ay waaye ñooña nañ delloo gannaaw te gaaw tuub te suuf ne bu fekkee bañ a dee dong la ak dese na ku ko màkk dara yàlla moo waxoon ci alxuraan bu yàgg ne inna li mawti alladi tafirruuna min fa innahu mulaqiikum yaakaar ne bu dee màkk dee fa bu fa ñëwee dee itam ba ko tayal ci dem màkka su ko dee fekkee fa màkk des na ko topp muy xaraam loolu nit ñi ku dem màkk mën nga faa ndox ñu dem màkk yëpp dañ leen jëriñ waaye ñu faa xam rek ko rek moo gën dañu tëgg ba faa moo gën daloon daloon daloon daloon yi yi nga xam ne amu bu ci ngërëmul suñu borom nekk ak kon kuy def ku bëgg a dem na dem xam ne dee moom mën na si jàpp bu eh, ko waykat ba war a waral sax maanaam dee daal kenn mënu ko mucc te mënu cee mucc man laa ñëw bis مات بغيره اختلفت الأسباب ولتعارضت الأسباب والموت واحد fu nekk fu nekk te nit ñi loolu ndax nag ku ko def da nga mucc waaw la laata amee suñ ko def suñ ko jël suñ ko ko buñ la gëmee jox la wuti ko waaye yàlla nee na bis bu ngeen xëyee da ngeen di gën def nañu daal te fas ko te fas ko wuy jël joxe seen farat suñ gën see baax na suñ fa desee leen desee laal ndax foofu yàlla lañ ko fekk muy gërëm di nekk béykat yi xam nañu te musal ci pexe soo nekk ci bëgg yàlla sunu laa yàlla laa yàlla